Bon, tamboy, tamboy, tamboy, Toulouna, tamboy, yu yu doy waar yu bëri yoo xamante ne ñu ma marqué bari na mais am na yoo xamante ne am na boo xamante ne vraiment saa su ma toogee sama xel su ma xalaatee rek damay ree xam ne tëwoon naa quoi parce que dafa am benn jour dama leen di expliquer nag dafa doy waar. dafa am benn jour ma nekk ak euh, sama waa gaale affaire fekk ñoom doon doon préparé pour dem xew affaire yooyu fekk xaw ma Kaolack lañ waroon dem ko ñu ngi dëkkoon Gibraltar mais man dama dajale koñ bi yëpp mu jël siwo gaale bi boolu gaale bi yóbbu terrain affaire yooyu jël sama musóoru maam ndekke musóoru maam bu ma xotti woon yooyu moom la waroon sol pour dem xew bi ma dajale sama maquillage tante yi affaire yooyu noonu. pour pour pour def ko pour pour simbu quoi xoola ma dajala koñ bi yop temps yooyu noonu xoola Sadio temps yooyu Sadio moo xewoon quoi ay simbu affaire yo non ma jël maquillage affaire yo dajale ko xoj ko sun dox tiim ko sama kanam fek wa gaay dañu gennon génnoon jël sama si jël seen yere yu waron demé ci xew bi yëpp ma jël ko tak sama morceau tak bopp bi génn man maay gaynde bu mag di takaji ji koñ bi di perturber amoon nañ benn booy ba nga xamante ne booy ñoom ñoo nekkoon gaynde bu mag bi gaynde yu ndaw yi quoi mais man maa nekkoon gaynde bu mag bi may dàq ji comédie pété mais nekk lu may daw di dàq ji def nii rek sama benn tons bu ma gën a ragal tonton def nii gis ko rek commencé tekki sama yére gaynde bee ngi daw gaynde bee daw <laughs> ma dugg sama gaale dugg si douche bi jour boobu lan may dóor quinze heures ba vingt heures mais xam nga temps yooyu noonu miiru Gibraltar yi dafa gàttoon nii mais da nga doon gis xoolal yeneen gàll yi ñu taxaloon nii dañ doon sëpp di ma di ma yónd man ku ma yónd ñu ngi may dóor de talu ma dóor de man ah da may yónd ah yow tamit da may yónd di gën a jooy sama tool bi di ma dóor naan ma gaynde du jooy ma ne ko muy baal ma lendemain bi ma génn koñ bi taxaw si boobu koñ bi gars yi naan ma Sadio ay booy Sadio <laughs> affaire bi métti ma dund ko nag dund bu métti affaire bu garaaw <laughs> loolu tout le temps nga may daf may marqué ko gel bi waaw bon bii tamit beneen histoire la temps booy maa ngi koy fàttali bu baax fekk 31 décembre moo jotoon quoi fekk temps yooyu noonu yow. gel lan la lay laaj hamburger bonbon biscaram chewing-gum yow xolo yaa moom 31 décembre man ma coaché yooyu yëpp ñu amoon soirée man soirée bi man maa teewoon teg yi wax maire bi indi sañse yi affaire yooyu noonu yëpp teg mooy gel bi xolo ma dem maa ngi doon jënd temps pose ongle amul woon quoi mooy ongle yooyu noonu show yi doon jaay si kénkéer yi deux cent cinquante yooyu noonu laa dem jëndal show bi ñu ko posé lii waaye ma dem génn yére booy ñu dem foofu jël bale kër gi raxas foofu jël boisson yi teg beñe yi gars yi ne dañuy dem sangu ji affaire yooyu man nag ma ne xam ma rek il faut ma yéex a ñëw ko pour ma yéex a ñëw xam nga pour gars yi ràññee ma man daal maa toog nag sama waa gars yi xoolal jël leen bàyyi. somnifère bi sotti ko si sama kaas bàyyi jus jox ma ma naan man daal maa tëdd rek gis midi gëmmaat ne noonu li mënul nekk mais après koñ ba dafa riir de boo yëppee ma delloo sama xaalis 2500 laa tegoon te temps yooyu noonu 2500 nii comme 150 000 jamono jii nii si jamono corona bi laa lay tegal nii de mais dafa taroon gel bi si la ma bàyyi sama àdduna bi yëpp jour boobu laa doog a tëdd 31 décembre ay ay vingt heures hein, parce que dama bëggoon noppale ko rek après sarara loolu doo ko fàtte si la ma gel bi bàyyi bon Fall man maa ngi woo Edu mu ñëw expliquer ñu temps booyam moom tamit quoi si Sénégal plus yëpp